Serigne Saliou Thioune Gueule Tapée génn na def ay révélation yu bari ci digganteem ak Soxna Aïda Diallo wax sax ci waxtaan bu mujj bu mu def ak mooy juróom bii di Serigne Béthio Thioune balaa mu doon génn na Serigne Saliou Thioune Gueule Tapée ci waajtaayu 17 avril bi di màggal gi ñuy màggal dajeeg Serigne Béthio Thioune ak Serigne Saliou Mbacké tax na mu def benn entretien bu yaatu ak l'observateur leeral digganteem ak soxna Aïda Diallo mi nekkoon ñetteelu soxna ci way juróom bu góor bii di Serigne Béthio Thioune te jamono ji ñëpp di xaar événement bu mag bii di le 17 avril Serigne Saliou Thioune Gueule Tapée dellusiwaat ci projet yi nga xamante ne di bàyyam tegoon na ko fi bëggoon koo mottali ak yenn ci ay yoo xam ne defoon na ko ci njaboot njaboot gi Serigne Saliou Thioune Gueule Tapée dellusiwaat ci importance bi nga xamante ne di bés bu mag bi am na ko dina 17 avril ne dinañ ko amal ci beneen anam ndaxte da di bés boo xam ne bokk na ci li ñu suñu way jur bu góor bii di Cheikh Béthio xamaloon moo di nañu ko gën a jàpp gën ko bàyyi xel ndax muy màndargaal dajee gi way juróom bu góor bii di Cheikh Béthio Thioune dajee woon ak Serigne Saliou Mbacké nekkoon ca diwaanu Tasset ci département bu Mbour Serigne Saliou Thioune Gueule Tapée di xamle ne bés boobu mooy bésub 17 avril duñu ko fàtte ñun cantakoon yi ndaxte mooy bés bi nga xamante ne di suñu sang bii di Cheikh Béthio Thioune njëkk na gisee ak Serigne Saliou ba tax na tey jii bu ñëpp di wax Cheikh Béthio Thioune boroom di lëmbee ci àdduna dem ba sax am may ci ëttu murit ji lépp ngi commencé ci daje bi mu daje woon ak Serigne Saliou Mbacké di bés bu màgg boo xam ne jantakun yi respecté nañ ko lool Serigne Saliou Thioune Gueule Tapée di xam le ne ren ji nag dina am coppite lool ndax 17 avril bii dinañ ko màggal ci façon boo xam ne dina wuuteeg lool at yi ñu génn ndax mbas mi di covid 19 mayu ñu ñu organiser ko comme nañ ko daan defee teewul bésu cant la te dañ ko def comme ko war a defee Serigne Saliou Thioune digganteem ak soxna Aida Diallo mii nga xam ne moo nekkoon ñetteelu soxna ci waajuram bu góor bii di Cheikh Béthio Thioune Serigne Saliou Thioune Gueule Tapée di xam le ni am na yéena lool dajeewaat ak ki nga xamante ni moo di soxna Aida Diallo waxtaan ak moom ngir famille bii nekkat benn ndax lii mission la moom mooy taaw te bokk na ci li ko gënal dëgg moo di famille yëpp nekk benn leeral ci digganteem ak soxna Aida Diallo ni am na lu bëri loo xamante ne di waajuram bu góor xamal na ko ko ci soxna sii di soxna Aida Diallo Serigne Saliou Thioune Gueule Tapée dellusiwaat ci kàddu yu mujj yi nga xamante ne ni séq na ko ak waajuram bu góor bii di Cheikh Béthio Thioune muy daje mujjee gu mu mujjee dajeek moom ca daanu Bordeaux ca France jamono bi nga xamante ni cheikh bi feebar na lool ba sax foofu la jaaree ñàkk bakkanam muy xamle ni suñu mujjeeg dajee googu du ma ko fàtte ndax am na lu bëri lu ma wax bokk na ci ñu gën a fonkaat cant gii yëkkati ay kàddu yoo xam ne ba ma koy dégg xam naa ne sang bi mu may waajal Serigne Saliou Thioune Gueule Tapée di xam ne de bu dee ne Sénégal yi ñu ci ëpp miinuñu ma woon ñu ma woon waaye way juróom bu góor ko te xamal na ko lu bari ci biir famille bii ak seen cant gii ñu war a gën fonk gën ko jàpp ndax bokk na ci dernière recommandation Serigne Saliou Thioune Gueule Tapée di xamle ni jamono ji lenn dongu laa teg sama bët te moo di jàkkaarloo ak soxna Aïda Diallo waxtaan ak moom ngir jàmm mën a nekkaat ci biir famille bii way juróom bu góor teg lépp ci loxoom lii di firnde la bu ñu moytuwul ci 17 avril bii lu cantakun yu bëri bëggoon te na am te di daje Serigne Saliou Thioune Gueule Tapée ak soxna Aïda Diallo